Touba Madiana fii ci mbaar yi ci daaray sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé moom sëriñ Saliou Mbacké nekk daara ju mag joo xam ne nii lu ëpp junniy ndongo ñu ngi fay jànge guddee gaaw jàpp dibeer jamonoy xaaju guddi ñenn ca dongo yooyu nga xam ne ni ñu ngi fa doon jànge ci jamono yi nga xam ne ni yenn ci sëriñ daara yi dem nañ tabaski ñoom kot ubbi nañ fa ñu nekkoon ngir daw nag dellu seeni kër li ko waral nag ki nga xam ne ni mooy njiitu daara ji di sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé indiwaat na ci ay leeral. daara ñetti daara la ñenn ñi dañuy jàng xam-xam di wàcc ci kaw jumaa ji lay nekk war na ñëpp ñett téeméer nit ñenn ñi dañuy jàngal alxuraan di wàcc di ñibbi ci kër yi mbooloo mi bëri na lool ñenn ñi dañoo féete ci biir internat bi biir internat bi boo ñëwee dañ la tàndaloo ñaari yëf bu la neexee nga ne ci biti bu la nga ne ci biir ñu newoon ci biir internat nag biir ci guddi fekk na maanaam booba doo sëñ daara ci bëri julli ji nañ booy ci kaw dajji fenêtre yi biñ daa jëfee tari ñu xam ne bu ñu leen jéem a wax dara ñu gaañu ñu wax seen daa ne kon ubbi leen gune ñoom ñëpp dem. mbir mi nag bi mu amee buñ sukkandikoo ci yenn taskatu xibaar yi nga xam ne nii sax demuñu woon fa nga xam ne foofu la mbir yi amee waaye seeni xibaar ñu ngi ko taatan rek ci mbedd mi wala ci whatsapp bi wax nañ ne kat dafa amoon ñu fa gaañu am sax ñu fa ñàkk seen bakkan. njiitu daara ji sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé gannaaw ba mu naqarloo xibaar yooyu nga xam ne ni dara amu ci weddi na ko ba mu set wecc. man tey ci suba sax bi ma déggee xibaar yi damaa jaaxal lool. li ma dégg nag ñu naan am na ñu ca faatu kenn faatu ci loolu moom du dëgg ku ngeen dégg te mu ne am ku ci faatu ko kan la ak fan la loolu moom amut. waaw am na ci koo xam ne blessé na nag waaye kenn laa ci xam man ñun nag bu déggee ab xibaar balaa cee wax dara daa war xam xaar ba am ci lu leer tooñ ñu nag ba fa tooñeem lool xam nga daaray jàmm nga jékki-jékki ñëw ne juróom ñaari nit faatu nañ fa te dara amu ca du dëgg loolu ay tooñ la. tooñ baaxul na gaa yi bàyyi tooñ. ci yeneen xabaar yoo nga xam ne ni te wax nañu ne wala ci yenn yi nga xam ne ni jot naa siiw ne daara ja kat ay anam yu metti la fa doon dongo yi dundee loolu itam weddi ko ba pare indi ci ay leeral. la ca toppaatit dégg naa am ñu naan cox la ñuy lekk loola xel nanguwu ko nit man da tabax ñaari daar yoo xam ne boo ko xool war naa mat un milliard nga wëlbatu da faratu cox booy jox dongo ñuy dund soo ñëwoon ci biir magasin bi da fekk ceeb fekk fi dugub fekk fi maanaam ñebbe lépp na ci biir daara ji loolu xel nanguwu ko la euh, fi mu jigéen ñi nga xam ne ñooy toggal dongo dañ leen di fay am na ñoo xam ne seen doom ñu ngi ci biir daara ji ba tey ku kuy miim loola di ko jeexi jaax na nga ñëw ci biir daara ji laajte xool ba xam. sëñ Mouhamadou Lamine Cissé féete foofee ca Touba Madiana di fa jàngale alxuraanul karim ci ndégalu sëriñ Saliou Mbacke diir bu yàgg boobaak léegi. li waral nag mu nekk foofee ca Madiana ci ndigal sëriñ saaliw gën na ci indi ay leeral. daara ji man kër si Mourtala laa yaroo am fa benn sëñ Saliou laaj ma ko. nee ko damaa bëgg mu jàngaleel ma mu andi ma ci kër gi kër kër sëñ Saliou woon jox ma juróomi téeméer dong yoo xam ne dañ naan daw ak a xiibun nee ma yóbbul ma ci kër googee ñu continuer foofa de jàng bu buñ jënd kër ga. mu boole ñu ak seex bi ci cuun mu ñuy toggal la mat juróomi téeméer dong nu continuer ca dong noo deen jàngal bis bi may ñëw fii ci daara ji kër sëñ Saliou dafa def déclaration ci rojo jumaa ji ne képp kuy jàngat di boole naa la ak sëñ loolee nag sëñ Saliou ko mooteel moo war mbooloo mu bëri nii. mbir mi amee kii di Mouhamadou Lamine Cissé woo na police ñu ñëw def constat ci ëllëg sa itam dem na wuy ji leen. ay laaj yu bari mën cee sampe ngir xam kan moo nekk wala ñan ñoo nekk ci ginnaaw mbir mu ñaaw miile. ñenn ñi sax ñu ngi njort naan kuréel yi nga xam ne nii xeex diine ak xeex daaray alxuraanul karim ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. rawatina daara ji nga xam ne nii jàng ak jàngale ak yar dongo yi ci yarub lislaam moo ko tax a jóg.